askanu Sénégal jël nañ seeni matuwaay gannaaw ba jàngoro bii di coronavirus duggee ci réew mi ba tey lu ci mel ni masque ak gel antiseptique doon lu ñu faratal jamono ji jàngoro ji feeñ sa Chine booba ak léegi ñeenti weer loolu waral fu doomi Chine nekk ci àdduna du dund ak Body ndax ñi nekk Sénégal mucc nañu ci képp ku xam centenaire nekk marché ci mim réew xam ni fa la chinois yi gën a bari ñu tataan suñu micro ngir xam ñëfay fay liggéeyee naka la ñuy dundee ak ñooñu lee. si xuma ak ñoom jox non li ma gëm mooy maanaam du dal africain quoi man li ma gëm góob ma ne fu mu gëmoon fu ma gëmoon ne am na fa du ma fa tere dem quoi. ñun ñu fi nekk moom wax dëgg yàlla dawuñu leen xaw ma nag ñeneen ñu fi romb di leen daw mais ñun ñu fi nekk di fi liggéey ñun dawuñu leen. chinois yi ni may dund parce que nee nañ ñoo fi indi feebar bi su ma gisee chinois dama koy moytu am na am na benn chinois bu nekk fii boo solul masque doo dugg plaza te loolu c'est pas normal waaw suñu leen mënee daw ñi daw leen c'est ça <laughs> man daal loolu laa gis. waaye sii di wuyoo turu Dramé ñu fekk ko ci place muy jaay yàgg jëflante ak chinois yi moom beneen xalaat la ci am. li gëm moom mooy feebar bi du laal africain quoi. ñun moo amu ci benn problème ñu ngi jëflante ak ñoom di duggante ak ñoom di joxante ak ñoom lu ñu doon defante ak ñoom ñun daal saatuñu ci ñun dara ko pour l'instant ni moom ñu doon joobe ak ñoom la ñuy joobe ba léegi nii quoi. ñu ku ma yoral si waaw bu yoral xaalis danga may jox damay dem jël sa xaalis toog sa depp toog waxtaan jël li ma seq ak yow dem sama yoon quoi amu ci benn problème fu ma dégg na am na fi du ma fa tax a daw bu fa amee soxla dama fay dem li siburu la rek pali la rek tubaab yi xamuñu pali te ñun li pali la rek ci jur te ñun dañoo dañoo dëkk ci pali dañ cee dëkk li yëngaluñu kii di Omar moom bu weesoo lii di coronavirus bi sax xalaat ni war nañoo gën fagaru ngir mën am wér yaram saa su ne. sant yàlla rek mais changé wul dara nag suñu diggante ak ñoom wax dëgg yàlla lu bu ñu amee lu soxla ci ñoom dañuy dem régler ko après nekk ci li ñu war a nekk quoi wax dëgg yàlla duñ leen daw duñ leen def dara. carré bi si moom ñooñu euh, mën na see bañ a parce que carré bi si ku ne si dugg ak nit ñi xatee taqaloo beeg yooyu waaw. war nañ ci jël matukaay bu baax a baax pour bàyyi si xel. coronavirus bi daal ah kii rek moytu rek ama nag euh, sabab lu baax na trop quoi moytu mais man de wax dëgg yàlla ay coronavirus moom du ma ko toog sax ba mu tiital ma wala leneen quoi wax yàlla dinaa def nag lu ma war a def jël samay matukaay affaire yooyu. avant coronavirus xew dañ daan sëqat di kon kay man loolu du ma tiital wax dëgg yàlla man moom vraiment. du ma toog sax bam su ma gisoon nit di tisooli sax du ma xelaat lu ñaaw sax si moom wax dëgg yàlla.